mais ci ay coow ak. ay di traqué ak di traqué naan da ngeen di fay li ngeen di defoon on se permettre ça mënuñu nekk ci benn Sénégal boo xam ne après peut-être bu ñu bàyyee nii mu dem. Mhm. après qu'est-ce qui va se passer. très bien alors euh, Fatou Abdou que dire de la réaction de l'Assemblée nationale ci c'est vrai que communiqué non signé la mais gis nañ jàpp nañu ko peut-être Conseil constitutionnel dafa remettre en cause souveraineté pouvoir bi ñu yor ñoom. waaw bon loolu même ñi ànd ak ñoom sax am na ci ñoo xamante ne ñaawlu nañu ko déjà gis naa ci un ancien parlementaire bu jàpp ne sax lii jógewul ci conseil con ci assemblée et pourtant assemblée nationale benn député confirmé na que ne ci ñoom la jóge déjà dafay indi rek ci crise de pouvoir crise de régime parce que loolu moom moo feeñoon depuis le départ depuis bi ñu ne euh, ñaari juges yi jiiñ nañu leen corruption la UMS génn ne amuñu sañ-sañ pour déglu leen bëgg na lu ci juristes yi wax mm-hmm. carrément conseil assemblée nationale am na prérogative pour déglu ku nekk et sur n'importe quel sujet au même moment ay nit yu seen xam-xam màcc ci wàlluk yoon jàpp nañu ne conseil constitutionnel kenn waru leen déglu ndudul procureur de la république mooy plainte ba la ñu waroon activer fi ñu mujj tey man dama jàpp ne au delà de ñoom li ñuy wax ne peut-être conseil constitutionnel daf leen joxul cër peut-être ñaari cri crise bi am ci deux régimes yi c'est tout à fait normal parce que conseil constitutionnel moom désavoué na leen ñoom ñoom également affront lay nekk ci ñoom du leen neex moom moo tax ñuy wane seen ñuy wane seen métit mais li muy firndeel rek moom mooy euh, mënoon nañu njëkkee peut-être cette plainte boobu nga xamante ne moom moo anéantir l'Assemblée dafay jox mbir mi caractère politique bi nga xam ne am na ko dinañ ma wax ne ma c'est normal ndaxte boobu ñu ngi ci processus bi il fallait que ñu xam mais c'est parce que boobu dañoo bëggoon acter le report rek report bi il fallait que ñu wutal ko nday wutal ko baay mhm. wutal ko nijaay mhm. moom moo taxoon et pour cela il faut ñu jël pencum ndaw réew bu Sénégal des députés de l'op de de de député PDS nekk de connivence wala collision ak député yu coalition benn Bokk une première peut-être ci li nga xam ne mooy at yi ñu gis ko à l'Assemblée nationale pour indi cette commission d'enquête parlementaire fi mu mujjee mooy ministre de la justice yónnee leen wax leen ne ubbi nañu information judiciaire dafay anéantir loolu nga xamante ne moom moo tukki woon Assemblée nationale et pour loolu kii atte boppam du weddi boppam loolu dafay indiwaat li nga xam ne mooy cette crise de régime que ne même cette loi comme yéen a toog def commission d'enquête parlementaire pour toroxal lu tolloog ñaari juge yoo xamante ne dañu leen a jiiñ ger décision ba nga xam ne voté ngeen ko foofu muy une loi constitutionnelle bu ñëwee fii tamit mën naa ko neenal comme ni nga xam ne moom la conseil constitutionnel def mhm. donc crise da boo xamante ne dès les premières heures xadi mhm. wane na boppam et loolu moom mooy continuer jusqu'à présent entre ñaari kuréel yooyu nga xamante ne ñoom ñoo ñoom ñoo fi nekk mais aujourd'hui je pense que conseil constitutionnel li ñu doon wax rek que le dernier mot lui revient et fi mu toll nii li mu jël décision ci la ñu mën a tënku ak li ñu doon wax depuis concertation entre les différents acteurs. c'est clair mu ñuy indiwaat ci li nga doon wax sànq par rapport à institution yi ñu war a tëggaat. waaw des institutions fortes la war a tëggaat xadi mais man loolu avant la présidentielle pour man mënul nekk. c'est clair parce que loolu de large concertation moo koy liggéey. Mhm. gis nga CNRI bi ñu fi tegoon après la présidentielle de 2012 dirigé par le professeur Amadou Mokhtar Mbow. ay weeri weer la ñu liggéey. Mhm. donc loolu du li benn fan du liggéeyu ñaari fi. li fi xaj mooy président yi nga xam ne wala ñi bëgg a sàkku jiite réew mi ñoo war a engagé wu comme niñ engagé woon ci charte assise nationale ñu charte ñu def benn charte boo xam ne dañuy ne ki falu bu toogee day ubbi ay concertation ñu seet nu ñuy euh, fortifier suñuy institution mais aussi diluer un peu mm-hmm. équilibrer sur le pouvoir du président de la république quand parce que léegi président jàpp nañ te gis nañ nangu nañ ni dafa bëri pouvoir au Sénégal ndax Sénégal ngay toog ñu ne président bu ko neexee tey doo fanaan sa kër warul mën a ne ndax nekkatuñ ci boobu àdduna ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc loolu lañ war a liggéey mais loolu du avant la présidentielle loolu ki fiy toog mooy engagé wu ne bu toogee dina indi ay réformes institutionnelles yoo xam ne dinañu changer lu bëri d'ailleurs dans beaucoup de programme am na ñu ko ci def boo liiree livre tekki bu gëm sa bopp wala nga liir les neuf tomes de du docteur Abdourahmane Diouf. Mhm. ku ci nekk rek am nga ay réformes institutionnelles yoo xam ne proposé nga ko léegi nag ki fi toog mooy engagé wu ci ay réformes institutionnelles yoo xamante ne. Mhm. bu ñëwee dina mën a changer la donne euh, mais euh, bien euh. amatuñ temps boobu xam nga ban temps la ñu am ci li Bamba di bañ ci dialogue concerté wu boobu mooy temps wu seet nu ñuy organiser élection bi ba mu inclusive transparente nekk dans de bonnes conditions te boo xoolee conseil constitutionnel décision bi mu jël moom lijjantiwu ko joxewul dat considérant 20 impo euh, constaté na impossibilité organisation élection bi mhm. mais euh, élection présidentielle la war mais ak processus bi nag où est le processus dans tout sax parce que élection aboutissement wu processus la mhm. donc où est le processus dans tout sax loolu interrogation la moo tax décision bi leerul ndax dafa ne nañu reprendre processus leerul ndax dañuy dem directement élection bu ñu naree dem directement élection avec les 19 parce que léegi nekkatuñu vingt liste définitive bi 20 la woon loolu aussi nan lañ koy envisager te ci boo xoolee ci considérant yi nga xamante ne évoqué nañ ko ci biir décision bi nee nañu hormis excepté larticle article 34 mhm. bi nga xam ne dafay constater demi retrait wala empêchement wala décès candidat mhm. moo war a justifier report de l' te loolu amul bi ko président di reporter mhm. pour aujourd'hui changement am na parce que y a retrait euh, d'une candidature celle de Rose juridiquement di nga dégg nag ku nekk. ak interprétation. mais oh, mais moom sans retrait bi sax ndax moom bokkati na woon puisque dafa dafa dem ak wax joo xamante ne amul. mais loolu conseil sax. waxu ko parce que conseil ba muy def la liste des vingt. dafa ne sont retenus comme candidats à l' élection présidentielle du vingt cinq février les noms comme suit. Mhm. léegi bërki démb bu muy joxee décision am reveniraatul ci la liste bi nga xam ne moom la publier woon le euh, avant le vingt cinq mm-hmm. donc yooyu noonu yëpp nekk na ay impératif yu conseil waroon a mun a leeral te leeralu ko léegi nag sans concertation nan lañ ciy liggéeyee donc il faut impérativement qu'on que l'on discute pour savoir ndax on reprend le processus comme on parle de reprise de l'élection présidentielle ou bien on continue avec cette liste des 19 mm mm-hmm. hormis les changements et si on continue avec cette liste des 19 il y a un ki qui a dit hier quelque chose boo xam ne man attiré na sama attention Malick Gakou nee na moom wane na quitus fiscal am yeneen candida yam nañ def ni moom xanaa dafa yëg lu ñu yëgul. Mhm. wax la nag. junj na junj na de. wax léegi dañ bëgg ñuy continuer daal dans ce flou total après ñu dawal quelques jours. sama genre gi buñ ci xamee dara xëy ni ko bàcc ci biti nekk ki candidat bi amul amul kii. justice fiscale mm-hmm. te mu ngi nii ci liste des vingt la bokk mm-hmm. donc vraiment y a beaucoup de problèmes pour man reprendre la processus du loolu mooy la voie de salut parce que loolu mooy tax bu ëllëgee duñ fi teg un président illégitime duñ fi teg un président contesté mais on élira un président de tous les Sénégalais parce que majorité bi ñoo ko fi nar a teg kon même bu fekkee nit falu koy dina nangu ne kii mooy njiitu réew mi pour man loolu mooy l'essentiel loolu ci lañ war a sëgg parce que conseil constitutionnel décision bi réglé wul lépp indiwul réponse yépp parce que y a beaucoup d'interrogations yoo xamante ne boo xoolee càmbar décision bi yow amagoo ci réponse mhm. man amaguma ci réponse donc loolu il faut ñu ubbi ay waxtaan pour mën a am réponse ci li nga xamante ne moom la fi conseil bi teg te bañ a xool rek ne impérativement il faudrait qu'on puisse tenir les élections à la date du 2 certes les articles 27 et 103 de la constitution mooy considérant 14 bi foofu conseil bi ñëw ci ni il faut ñu organiser li mu définir mooy 21 jours premier tour 15 jours deuxième tour te même bu ñu joxee résultat premier non mais soyons rationnels quand même campagne deuxième tour deux semaines la mais ci raccourci bi kon trois jours wala une war a bu fekkee impérativement dañu war a def élection am ñu naan sax mën na yem premier tour ah oui donc on a des résultat préfabriqués kon. <laughs> Ah, ça c'est clair parce que suñu taxawee ne <laughs> premier tour la ñuy yem kon yow da am say résultat yu fi tegu yoo xam ne da xaar jour ba jot rek nga génne ko donc soyons sérieux quand même. Mm -hmm. soyons sérieux Sénégal buñ ko fawee buñ jël suñu bëgg-bëgg rek teg ko suñu kanam ah l'enjeu de taille parce que. le président de la république bu ko xasee fal li ci des yëpp moom moo moom moo koy définir parce que c'est lui qui définit la politique de la nation c'est cette personne qu'on doit choisir mais pas dans ces conditions quand même nañ ko choisir en toute quiétude mais aussi ci xel bu dal nit ñi déglu candidat yi déglu programme yi xam ku ci nekk lan nga naral askan wi mm-hmm. mais jusqu'à